ci seen darsu mustalahul xadis di darsu boo xam ne baaxoo nañ ko yenn altina bu nekk tey nag mooy suñ ñetteeli darsu ci li nga xam ne moom mooy mustalahul xadis suñu darsu bi njëkk jàngoon nañ lan mooy xadis luxatan wa istilaahan darsu ñaareel bi jàng nañ ñetti baat yi muy xabar ak lu ñuy tuddee asar ak lu ñuy tuddee xaddis buñ nee xaddis luñ ci jublu buñ nee xabar luñ ci jublu buñ nee al asar luñ ci jublu yaakaar naa ne loolu darsu la yoo xam ne képp ku ñu topp rek buñ la ko laajee danga ko tontu facilement même boo jàngut arab it mën nga koo tontu te la ngay tontu kenn du ci mën a tegg dërëm alhamdulilahi ci loolu tey nag mbokk yi ñu war a tàbbeeg yéen nag ci xaaju xaddis yi ak anwaa yi nga xam ne xaddis am na ko maanaam anwaahul xaddis muy xeeti xaddis yi bari nañ lool nag waaye lu ñuy bari bari manees na koo tënk ci ñeent manees na koo tënk ci xaddis boo xam ne wala ci wal manees na tënk ci xaddis boo xam ne xaddisu saxiix la wala xaddis boo xam ne xasan la wala xadis boo xam ne daif la masalan xadisu saxiix ak ay xaajam xadisu xasan ak ay xaajam xadisu daif ak ay xaajam xaaji lu ñuy bari bari dafay delluwaat ci loolu ndax xadisul munkar des koy delloo ci do fa rek ci xadis bu daif rek xadis boo xam ne mawduu la it naka noonu xadisu muttarib wala léeg-léeg xadisu muxallaq ñëw nekk xadis boo xam ne daa if lay doon léegi léeg mu ñëw nekk saxiix léeg-léeg mu ñëw nekk saxiixun li xayrihi léeg-léeg mu ñëw nekk xasanun li xayrihi léeg-léeg mu ñëw nekk xasan mën naa am xeeti xadis yi daal buñ ko delloo ci yooyu manees naa jàpp ne kon dañ naan xaaja xadis yi moo am xadis bu wér ak xadis bu wérut ak xadis boo xam ne bu rafet la dégg nga xadis bu wér nag dafa am ñaari xaaj bu wér ci jëmmam ak bu wér dégg nga ci lu leneen lu moom maanaam lam wéree loola du jëmmam bu rafet ci jëmmam ak bu rafet ci leneen lu moom nga dégg ñu ne saxiixun ak saxiixun li xayrihi ak xasanun ak xasanun li xayrihi léegi nag bu ñu xoolee bu tasaaree lim yi dafay bëri masalan man ngay wax ne xadisu saxiix am na am na li ñu tuddee xasan am na hadisu daif am na muallaq am na mu'dal am na mursal am na li ñuy tuddee mursalu sahaabi yi am na hadisu mudallis am na mawdu am na matruuk am na hadisu matruux am na mudaaf am na hadisu majhul am na mudarrib am na hadisu maqlub am na dégg nga muttarib am na hadisu musahaf wala muharraf am na hadisu shaash am na hadisu marfu am na hadisu mawquuf am na hadis bu tudd uh, maxtu am na mu mutawaatir am na hadis yu ñu tuddee al ahad am na musnad am na muttasil am na musalsal am na fard am na hadisu muhanhan am na hadisu mu an an hadisu mungalab hadisu aali hadisu naasil hadisu xarib hadisu mubam hadisu mudabbij hadisu naasix hadisu manquus uh, dégg nga mansuux hadisu mu'talaf hadisu muxtalaf hadisu dégg nga uh, dégg nga yooyu ñooy xeet hadis yi wala ñuy tuddee mawdu oto moom la ñuy wax maksuub léegi nag xeeti xaddis yi bari nañ lool tey nag suñu darsu benn xaddis la ñuy jàng tey mooy lan mooy xaddisu saxiix loolu la ñuy jàng tey gannaaw bu ñu tuddee turi xaddis yooyu yépp léegi lan mooy suñu darsu tey mooy ñu wax xeeti xaddis yi ba pare wax lan mooy xaddisu saxiix benn xaddis bu nekk ci xaddis yi ñu wax leen danañ leen ko décortiquer ba fu ngeen ko déggee ngeen xam ne xadis bii kat mu ngi bokk ci xeetu sàngam insha allahu rabbi bu ko defee kon gannaaw bu ñu leen jàngalee xeeti ahadis yi nga xam ne am na mu bari lool benn bu ci nekk insha allahu rabbi ñu fas yéen a ànd ceeg yéen leeralal leen ko ba bu ëllëgee bu ngeen ko déggee wala ngeen gis ko fuñ ko bind walla nit wax ko ngeen xam ne lii la ci jublu ñu njëkkee li ñuy tuddee alxadisu sahih mooy xadis bu wér xadis bu wér nag borom xam-xam yi liñ ci wax leer na ci baxtu yiñ defoon ci lañ leen dugalalee texte boobu mooy maa ittasala sanaduhu bi naqli al adli daabiti an mislihi min ibtidaa sanadi ila muntaahu min gayri shachuusin wala illa mu ne xadis bu wér mooy xadis boo xam ne sanad bi joti na waaye joge ci toxolak aji màndu koo xam ne ku mën a mokkal la mu jëlee ko ci ku mel ni moom maanaam ku màndu ku mën a mokkal mu jëlee ko ci ku mel ni moom ku ku mën a mokkal li ko dalee ci commencement wu sanad bi ba ci mujjanteelu sanad bi te du am susuus bu ci nekk waaye du am xilla bu ci nekk moo tax ñu ñu ne suruut suruut yi nga xam ne am na ko muy suruutu su saxi juróom la bi ci njëkk mooy ittisaalu sanad ñaareel bi mooy adalatu raawit ñetteel bi mooy dégg nga adapt mooy xifsu xifsu ñeenteel bi mooy addamu illa juróomeel bi mooy xaddamu susuus léegi nag loolu moom lañ leen indil misaal ci xadis bii ñu génne leen nga xam ne imaamul buxaari yi moo ko indi imaamul buxaari yi dafa wax ne xaddasana abdullahi ibnu yusuf abdullahi ibnu yusuf waxtaanal nañu mu ne axbarana malik mu wax ne malik waxtaanal na leen wala xamal na leen wala soloo na leen mu ne an ibnu sihaabin malik nee na jëlee na ci ibnu sihaabin ibnu sihaabin moomu jëlee ci muhammad ibnu jubayri muhammad ibnu jubayr ibnu mutim jëlee ci baayam te mooy jubayr ibnu mutim jubayr ibnu mutim moo wax ne sami'tu dégg naa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenentu bi mu ne wala dégg naa yenentu bi qara'a mu jàng fil maghribi ci gexe bi tuuri ci timis bi tuuri ci suuratu tuur mu ne dégg na yenentu bi sallallahu alayhi wasallam jàng suuratu tuur ci jullik timis kon loolu mooy jëmmi xadis bi xadis bi nag xadis bu wér la ndax mboolem surut yi nga xam ne mooy dajee ci xadis tax mu wér dajee na ci moom masalan sanad baa ngi noonu ma joxañ baaraam Abdullah ibnu Yusuf Buxaari yi moo ko jëlee ci Abdullah ibnu Yusuf kon Buxaari yi ci kan la déggee xadis bi mu ngi ko déggee ci Abdullah ibnu Yusuf sëriñam Abdullah ibnu Yusuf ci kan la déggee xadis bi mu ngi ko déggee ci Malik ibnu Anas sëriñam Malik ibnu Anas ci kan la déggee hadis bi mu ngi ko déggee ci ibnu Sihabin az-Zuhri sëriñam ibnu Sihabin ci kan la déggee hadis bi mu ngi ko déggee ci Muhammad ibnu Jubayr Muhammad ibnu Jubayr ci kan la déggee hadis bi mu ngi ko déggee ci Jubayr ibnu Mut'im Jubayr ibn Mut'im ci kan la déggee waa hadis bi mu ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon gis nga sanad bi am na ittisaal amul benn dagg-dagg bu ci nekk kon première règle bi mu ngi noonu mat na beneen bi mooy maanaam xaddaala bi nga xam ne raawi bi war na koo am yaakaar naa buxaari yu kenn di werante ak xadaalaam buxaari yu borom xam-xam yi dëppoon nañ ne siqa ki mu ko jëlee muy abdullah ibnu yusuf siqa la mutqin la ki ko jëlee muy malik ibnu anas imam la xaafis la ki ko jëlee mooy ibnu siabin moom it faqi la xaafis la ki mu ko jëlee mooy Muhammad ibnu Jubayr siqa la ki mu ko jëlee mooy Jubayr ibnu Mutaim sahaaba la sahaaba bi ku mu ko jëlee mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kanaa mandute am na mokkal am na dégg nga muy takk gi am na dégg nga xilla amut ci li ci tegee nag mooy xamut susuus amut ci maanaam amut saas ci hadis bi ndax boo xoolee hadis bi ci jëm boppam amul keneen ku ko soloo koo xam ne maanaam gën naa gën naa dëgër ñi ñëw ci sanadu hadis bii nii kon lii mooy misaal bi ci li nga xam ne moom mooy xadis bu wër incha allah yal na defal ñu dégg ak topp yàlla musal ci saytaan ak yàqu ak yàqule ci barke yonent bi seen mbokk Cheikh Mahamadoul Habib Ndiaye al Kaymoor yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa